أنا nee na kullu ma من العمل الصالح البدني والخول صالح اللسان ان شاء الله اكون امامكم كان سيقول كل خير صلى الله عليه وسلم لب لو ما لين ديغل ci jëf يا xam jëfuk yaram la wala wax jaamu yàlla ci jëmmuñ lay bàyyeekoo man li du muy ndax ci loolu. wa sallam. waaye li gën yem Fatou koo gis danaan toppal diw mu toppal diw mu toppal diw. Ah, waaw li maamu ne déedéet laa tarjuma ni béy nii sama diggante yéen kenn jaar sama diggante sa morom kenn jaar waxoon na ko démb ana min allahi wal mubtadi bi nii. la ilaha إلي واقتدوني في فعلي وخولي إن وفيتم قال لي أنت من القرآن لا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله yàlla na yontu bu ngeen bëggee ma bëgg leen yéen samay jaam sopp leen topp leen sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi bàyyi leen toppul kenn xool leen ci man te ngeen roy ma man a démb man a teg dama woy benn woy 88 maanaam mu nga feeñoon maa ka dem ba waaw waaw doon araa tey woote diine dellu feeñ fi yow fi soo daan marhaban yaa xayra daa ma ne bisimilah yi may tàmbalee way mam li ma mu xurubu laaye ak ma njool ak sayidina mbay marxaban yaa xayra daay feeñee di woote diine noon ñi jóg naan ko woote mu ni leen yàlla ma yónne marhaban yaa xayra daay مرحبا يا خير داعي مرحبا يا mamdi mamolaina sawuɓi sawu kayɓe rawu kayɓe rawu kayɓe roto kayɓe marhaba ya hayra nu déglu leen inni rasulullah ilaykum فن في ما من نداء لهذا النحو قد سمع سوى سوى الإمام الله ما من نداء لهذا النحو قد سمع سوى الإمام الله يا محصر الانس والجن اني خالق انا ما من الداعي بوتي بري بري بري ابو الكحلور لهذا النبي في سوجات قد سمع ان يدركوا قوتهم لهم وقال انا alihi wa alihi wa sahbihi Pape Moussa Guèye. déglu leen si ginnaaw ñu déglu. man mii la yàlla yónni ci yéen. Eh, Ndakaaru mu ne déedéet. Côte d'Ivoire déedéet. Dakar di xam ne. ci lan. daa insaanu waxtaanu nit ña wal jinne ak jinne lii xaalis suuf rek ibadallah ngir jam yàlla waaye la amoon màkk démb am wax nga sànq ñi gëm yëg-yëgu limaamu allah muy oote waaye bu mu feeñee nag ba woote ñooñu kenn naa rek tukku ne leen dee li ñu xamoon kii dama koy war a teg muy kat أول من أسلم به محمد kutubukum xanaa wax boobu mag mi wax yëpp waaye nag bu feeñ nag borom daraja di kilifa di ku ñëpp respecté mu ne bàyyi na nga dul munu munum ne ma dem na fànn ne yow wax awalu man aslam bihi muhammad bëgg am ba mu fa amee nag kii nag man bàyyi nañ ma bàyyi ko ci yéen di kilifa comme yéen nangal ko ne yow waaye nag des ba jigéen ñi des min na nisaa yi aslan umul sama benn kaset man ko bu Seydi Aji Malick weddi woon nu am problème bu ko maam borom Tuubaa weddi woon nu am problème waaye dëggal cëy waay sëñ seen amati ak sëñ al maktum moo ko wax ca tëngéej waaw waaw sëñ Ibrahima dinaan teew leen si kër maam waaw waaw asamaan sa bu dem góor gi Ablaye Dieng <laughs> bàyyi mu dem la noonu la toog leer di jàll jox ko sëñ Seex su comprendre ca pays bi mu teg leetam beneen leetam ñëw mu ne bu ma tontuwul bala maa dem ñu ne tontuwul kii dafay laaj suñu jëli maam di maamul Mahdi. alayhi salaatu wa salaam Seydi Bachar. nee na dañuy jàpp ba seen kaw oom. dañuy yóbbu seen soxna sa julli kay ba ñu tuddee yàlla. nee na ab yonent alayhi salaatu wa salaam mu ne ba ñu ko laajee sama maam ñoo ngi ko fekk jag saabu. la ilaha illallah. def bi nag danoo am lu nu jaaxal kaw jant bi kuy oote ak yonent waaye li nu jaaxal li jàpp sa kër oom. la ilaha illallah. ja dañuy riir tudde yàlla góor ak jigéen te islam xamul waaye li nu jéem mooy dañuy euh, jigéen ñi dañuy yore seen ginnaaw. mu ne kuy jàpp merci ji ku tàddeerul jàpp kuy jàpp merci ji tàddeerul jàpp mu ne bu ñëpp meloon na kër li kon sa war a génn ceexa wax sa tëgge moo tax ne yonante nag mbiru yàlla du mbiri dem su ko xasas wa minhum man afradna alayka la ilaha illallah Seydina Muhammad sallallahu alayhi ba mu la ñaanee paas dem jëgg ci ma yonent yëpp dekk nañu garab seen bàmmeel ah, waaw far ko ni biroolu yaatu def foofu la jëkk ba mu ne mu xëyee moom rasulillah yonent yëpp mu jël ñaari rakk Jibril moo nekk protocole mu naan kii mooy yàlla Adama mu naka xam naa kii mooy mu naka xam naa kii mooy Moussa mu xam naa kii mooy kan mu xaw ma ko mu ne kii mujj yàlla naka ne na ñoom ci yonent xam nga am na ñoo xamoo ne man ak man wa minhum man asna'naa alayka am na xamu leen mukk boo leen ko joxoon ku ko xam. ma ma tontu waay sa keer benn oustaz ba ma jógee di wax mu ne bu fekkee da wax ak yonante yonante de kee dara dem na bu ñëwoon ci àdduna nu xam. wala kër gi. est-ce que est-ce que yàlla. keroog xam nga dama doy sa kër. أجبوا دايا موسى وفي فوري يا غدل

la ilaha illallah quelque mu ne fa xàkkat du téeméer junni ak ñaar fukki junni ak ñetti junni ma ne ko wax ma sa tur yéen ñëpp mu ne teg la ilaha illallah ma ne ko bàyyi naa téeméer junni yi ñeenti junni yi wax ma seen tur mu ne teg ma ne ko bàyyi naa ñeenti junni ñett téeméer fukki ñett wax ma seen tur mu ne teg yàlla la wax fanweer ma ne ko xamoon nag ñett téeméer foo xamul yàlla bi maa ndoon la ilaha illallah Seex Seydi Aji Maalik radiyallahu taala anhu sama am leen jàpp tooga wax ba mu tudd fa Alaaji Maalik tudd fa Sëñ Tuuba dina gaal gaa ngi da ngay dem mu ne ah boppat di aras den tànk sas fay fa la teg tànk bala gaal yee bàyyi mu ne indil ma gaal ak mag yi léegi la keroog li xaw ci xaw mu ne tukki bi may tukki demuma tëbb fii ba ñëw ba liggéey li borom takkante rek dana yëpp Afrique ba mën doomu soxna tey ayaasa min allahi inna jeewale goto demoon gama iblisa isnade tum biyawole sëñ bamba ne dama juli taw taggeewal ba sën mën bi duñ nekk jongo dem tam sama mbàkke maa ngi lay tey sama pas te jawwal ko li nga wax. bu ñëwoon ñëw fukki naa lu góor na ma defam ko ma yóbbu si yow mën a bat ndox mi ñëwaat su kër raam na ma sànq dama laa soog nga ne te jeewal laa dee ci iblis. la ilaha illallah. bàyyi lay na nga ñëw. sallallahu alayhi yaa ngeen histoire bu yóbbu woon ngeen banaa wax jël ko sëñ Tuubaa nag li ma am na nga dem ñëw bala xam nga ah. mu ne Maodo ca Maodo ye ku leen ko moroom ñu jox la bi ma màgg leen jox yëpp xoolal mag muy seere sëñ Tuubaa ne ko fekkoon ni moom ak njabootam kon saw kon kéefal kay moo dana kon sawar a gerte ci Omar Fouti yi yaa ngi di màgg c'est pas 132 waxaale Cheikh Omar Fouti wa fi rima ala al ustaas al amul mansuur al baadaadi ala al mutakallimuun المتحقون ان بن حي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم شيخ عمر تريبا واخ بما واخ ابو المنكور مكو خون البعداني استاذ بو خامتني بو كن ولاية خينا نوا بغداد يلون تو نكرو بي غيسنا مو جوك فو تيبال بي لا ديم سون لو تي مان لو تا سي عمر ديو في تي غرا ام في اي اي اي اي وير ديرلو اذن واتان كدم سيتك مولن دن لين مولن خيلو ولا من تعلم نور محمد مثل جبريل صلى الله عليه وسلم يا خير خلق الله يجي لك دم لين اك مين إيه جيتو يا نغي إيه تور إيه؟ لولو مي في موي تاي خاوني امنا نعم في يالا ديف باي باي دا يالا صلى الله عليه وسلم دخلاني يعني. وحنا سنو كونتراس تبورا ويري باس امنا في يالا ما وقتان تاريخ سيخ ben sëriñ bi jóg jooy nama da nga ba ma ne ko ah kay gëm nu sa maam rasulullah waaye ndax gemul sa maam di jàmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Cheikh na sama talib ku xëy siar ci altine wala aljuma siaram ala nasabara sabara. waaw. Cheikh na ne. waaw bu yowmal khiyamé waaw bu ñu dekké wali yi ak xutbu yi. gis na ma yàlla defal daañu tedd nañu amoon jooju yàlla أنهم أهلا من أكابر الأخطار ولو رأى الأخطار ما أعده الله لهم لقالوا يا ربنا ما أحدث أتى إمام المهدي نجد تولو رب صلى الله عليه وسلم كل بس مرم ميكن أن الإمام المهدي أقيلهم في التاريخ فإن سعدته منه فإن حسبه منه كل من ورمون ذاك من نفسك فبيب يا ملايكي Seydina foo gis pàkk bu mel nii ah. xaaral bi yàq nee na mu àdduna bu ñëwee de ndax liggéey. waaw waaw wala boo kalkale bu ngeen fa la xool baax la. waaw. na Moussa defoon dina ko def gorow Moussa. Moussa dafa xar géej. góor def ko mu delloo ko ko. jëfal na ko jëpp sa loolu ala Moussa mu jël seen su géej gi def. li ma am ma li mu ñëwee day ndax géej dëkk ya gëm ak ñebe. dëgg la. benn mbir moo fay am dana andi wàllu san-san. nga xam jàmm laay ko ko gis. sëy naa boo demee tëdd fukki fan bàq am na doo fóot doo am déet tëdd jàmm laay fukki fan doo fóot doo tilim xaalis yàq na ne sos soo maa di feeñ àdduna xaalis sos weex tàllee doon taxam day jooy comme ay nit yi xaalis yàq neen moment bi tëdd ñaar ñax koy wër ci suuf def bu lem ak ñax bu ñax daxan alasan salaam wax na ko alasan salaam dana malaaka yi ñoo tóoj ñoo tóoj ba mel ba mu ne ci kaw waaye def bu ñax lem ak la jiwum ak ñax ak ñax bu soog loolu li ma ci mooy sëy naa lemam li mu wax mais ci mën a ko dindi Omar Ngalla ngi ñu jàmmalaay. waaw. Babacar Sadikh ngi ñu jàmmalaay. mo moo sas way wala so de siyari jiin sangol janaba tala jublul ba xabru ba julli rakay ya teew fotal so xam ba mu la wala ko mu tey ñaan. nga def ko adé ñu bu dox di wone nga del lu ñaan def ko muy siyaru doom yemu ya jur. ñu tote bi jamalay ci jëm rasul. sababu jàmbaayam jëm jàmmalaay. nga door a ñëw ci sëñu bi ñaan ma ñaan ko mahdi di yu naan. wax lo ragal tàng ñaan xobal fi jël lutax boo fa jógee na nga dem fu doon Seydou Mandiane Ndiol ñaanal ko muy haddiya bi ñaan ko Fatick Seydina ma Ndiol li annahu kaana moo fi fadaili wal ilm al yaqin wa basl al batin diggante xeblam xablu ba ak gas daagu taxe kem jottu miskin la xëy on fus ko dale sobam sa moo mata dox teenam ba moo mata naan fëdaañu taa gën a wax binaari ñetti sofa se ne na fa yax wex tàll moo koy kem مسكين لخير قول في فردان كما جامعة عيسو دخمان سوف بنيامين بات ما بلين بنيامين من خد سر سري كوبي روكاي دخم يعني. مسوك سخيت سوك موغا نغاو نيين سيدين نمو مخاما جدي بو فجيجي نغا جم أرمين يمو دلوا نيامين تلت يرو في جنتي كون وسلام مانجي تلو داري تلوا كامبرين جاني لين يين يكو وكيو خفرون بدينو نندا تسبب كنوك مانكو وي سوسان سر يا كنا بخاري بدو لا إله إلا الله bay day mu rasul sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko di sallallahu alayhi lu jàkkaarloo nag kii tey lu xaaliku wax office ayaatan walaw maatee office ayaatan walaw saxunat matee matee tamahat sama waxaati laha kalaamema xam nga li mu bëgg wax waxuma kii waaye doomam doomi doomam doomi doomaatam nana moytu ko de doomi maam kumba doomi doomam doomaatam góor wala bu jigéen nana jaan ju mag ak ju ndaw amul ju amul ba mu màcc ci lu bëri da yéeg rey na bàyyi ba rek ci kii tey ñu koy xoolee Fatimatu bint Rasul. sallallahu alayhi wa ak a neex a àndal. waaw. Oh. jërëjëf. jërëjëf. sanga seen ñu ngi lay ñaanal nga yàgg. Pape Baye maa ngi bëgg yi bu doon xas. di xas di xas ba mu dem kër Ibrahima Fall. fa la newet bàyyi Issa Mbaye moom lañ si këram mooy way kër bàyyi maa ni bay bàyyi may jox ma am montre xaalis mu ne ma doom man mii dama ñëw sama bàyyi naka bàyyi way dëkk bépp nee da ngaa dof te da ngay da ngay da ngay bànn baax na kaay xaar ma si néeg nee na boobu nga topp koo buun damay génn mën naa am mu ñëw mën naa am du ñëw bàyyi Issa Mbaye ñëw ba tëdd si néeg guddi gi xay la ñu xaar ñaari xaar fukki malaaka lay ñaar seen bët mënu kaa tegu ngir puus jot ñu ngi way li mu woy ma ne bay wayal ma ne man maa way guddi ñu nopp nopp guddi personne bàyyi góor góor ma tëbb ne isaan bay loo gis naka bàyyi ma xam wala man maa li mbay dama nekk dama kaa tayul malaaka yaa ngi ma àndal si saa yi joor ak jàmm ñu naan wayal soxna bee aras dafay jooy seen baay di baara bu laaw bi di woon kon laaj ko am na yam ne ko feeru fa jàmm laay laay laay laay laay laay ku doon laaj ku ame diine yoon leen ko feeru fa jàmm laay laay laay ame diine malaaka yaa ngi ma àndal sesaan joo càmm dina man woyal so noppee aras dafay jooy seen baay imaam waay mi nu yónnee bay ma ñu bay dara ñëw déen suñu kër bay ak bàyyi kii bër ko ma ma jur sama 95 dem suma jur ci laa jur am na na bu mu saa ñëw foofu ñooñu ne way dañu kanam ay ay dig way way naan dinaa la yóbbu yéen yéen taalibay libaas yii di bañ yii di bañ ku way bay libaas ku ci jàngul xamul mënul na ma déglu ñi doon nelaw li li yow déen taxoon way ko déen bay Malick Ndeye dafa ñëw ñàgg kër bàyyi jógal déen way yi dikkal ko mu gën ci an ko ku la mu doon ko xeew ja kii kat dana ma xam ne ku fa kenn ma ko mën a tar bi naa bir ñàkk di way bàyyi di baax awul kenn dana ma jàll déet teeni bërëb nga woy fa Seydina ndax ci ñëw Moussa ci wax Omar Samb gëm nañu bàyyi di baax Omar bii ma wérante ak ñoom man waa ji نسيني كي جاب لو دي ما يوني نما لي بي نفيو قلب المعدل ميون واختار انا بقول لك بروفال اباي بحجي في دكار وانا جاس اللي بدي اجيب لك فكر الغيبه صمود التوابره وكبره ورجينا جبت خوت دي لا اله الا الله بشر سي يا باكورا يا نباي نباسكو ريال سيدنا كوي doyal na maa li may ruuy màgg nga yooy doo ca diine doo bañ talaay laay ma ni doon nam jigéen ngi ma yóbban talay na koy rayu bay waaja leer gil ma woo waatoon na maa di mbay ma ñu daan dégg seen beten na fi ñëw moo ñu taawu bay laay gaa yi bi jëm yi ñëw di ma jël sa fekk raw tag nga jël ilaha illa ba déwén ñu di waxtaana maa di mbay mi fi daan ñëw ma ko ngi saalaay ku bay ni baas bay ñu ku la gën ni ku ñu la faare ñaanaa mu doon nekk yow waa ji mu àndal ñu ne ko teral métti na ko mu ñëw tàmbalee benn maam Seydou maa di mbay bu ko ebal ci jandeer day bandax walla way tegtal fa nekk day am diine mu nekk loolu mu nekk am suba moo ko maani bay waaye wër dëkk bi ne ku bëgg toroxal maani bay ëllëg na nga ñëw xool ñëw si kàmm si lañ def lépp nag nga bi nga demee Jandeer loo wax mu ne man tàbbi naa mu nekk a la dee di dara ndaw ma wéy ba sëy dinaa yow mag ji jóg Moussa Diop Omar Samba Kër bi di baas Omar nii di ci liggéey sa di dee na fu ñëw moom taal ba mu àndal mu ñëw rayal na bàyyi di baas kuuy rayal na sëy dinaa kuuy rayal na maa di kuuy màggal nga yoon wi toog ca lii toog mu ne maa ngi wala njëgan di ma yóbbante rey na kuy reyu bi waaw na maa di béy mi daan dégg seen kenn na fi ñëw moo taw ba ma demee bay ñibbi si ne foofu bu jëm bu jëm def délégation mën a fekk raw naa leen tëj nga ci biir géej da nga laay laay rek ba ñu li bay borom isaalaay ku bañ libaas bañ nga ku la gën leen ku ñuul la baaree nga yokke nga yokki fóon fóon dindi kaala ga dindi kaala ga nag Malick Bay yàlla kontaan bay lay kontaan sallallahu alayhi wa sallam kontaan mala ngay kontaan waaye waaye ban mbooloo am ñool la ñoom seen bëgg na mu ne ko ñuus aka wuute nag waa ju xees ci biir bool dil ma kalaame fii di naan moom day xaw ma lu ma koy wax boole fasan baan benn bitig benn muus benn jabar benn doom man yoon waxal ci waa ju la la dañ kalaay laay bal bañee kalaay laay ngóor ko santaane mi ngi tàggoo